ci li nga xamante ne moom mooy écran bi tey nag ñu ñëw seetsi ko fas yéene waxtaan moom ci li nga xamante ne moom mooy làmb wax dëgg yàlla instant bi nag ñëpp xam nañ feebar bi nga xamante ne moom moo lembe àdduna muy coronavirus bi di ñaan yàlla yàlla muccul ñu ci ci barki Seydina Mouhamed waa di ñaan yàlla rek ah dëkk boo te ni rek dugg na fa mu génn ak jàmm ak salaam te kenn bañ faa loru waaw euh, Baye Mandione nag ñëpp xam nañu porteur de voix la day sensibiliser ñu bàyyi ko mu nuyoo wax ci li nga xam te moom mooy feebar bi mooy ngi lay fa maa ngi lay fay ginnaaw ma sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam maa ngi sant di gërëm samay ñaari waajur di leen ñaanal fan nekkee leen fi jóge ak mboolem jullit nekk mi la xam yëpp di jullit may ñaan yàlla sama borom wàcc senegal jàmm wàccal ko fi kilifay diine yi kilifay aada yi ak àdduna bi yëpp yàlla wàcc fi jàmm may kontaan ci déplacement bi ngeen def ñëw ses ba fii waa Wasaare yow tamit ngay soxna su baax yàlla boole ñu ma yow bu yàgg loolu wax dëgg yàlla boobu léegi lépp rafet nga àndaat sa caméra man yàlla na yàlla taxaw def leen ci studio gën a kawe. nuyoo sant yàlla rek te xam ni moom lu fi xew lu fi xew ak fi am rek yàlla suñu borom la. yàlla moom moo ñu moom. ni mu ñu bindee ci xef a xepp ni mu gaawee ak ni mu defaree àdduna ni mu gaawee noonu la fi mën a jëlee coronavirus bi léegi mu gaaw ci xefar xippi te yàlla nag yàlla sama borom def vraiment feebar la boo xamante ni du àdduna la lambi àdduna loo xamante ni kenn xamul lu mu doon kenn mënu koo gis xam nga muy faagagal doomu aadama yi ay 24 heures muy rey ay 700 personnes ay 400 personnes loolu moom da nga fi yàlla suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël ko nu mu gën a gaawee ndax loolu moom doxul wax dëgg yàlla xam nga nu ñu yàlla sama borom jël ko léegi nii ndax mais coronavirus bi nag ah, dugg na Sénégal ñu ngi ñaan yàlla mu jógee fii mais coronavirus ju bare na ñëpp. waaw waaw ndax dama sanante gis opposition bi ñoom ñëpp ak président Macky Sall ñoo ñu taxaw ne si ginnaawam ba kenn xàmmeetul kii moo bañ bañkee kii moo bañ bañkee xam nga ba Sénégal gépp nekk benn man de li may ñaan yàlla sama borom même bu fi feebar bi jugee sax ni gars yi man ko nekk benn boole xol yi yëpp mu doon benn combat ñu ñu bëgg a fa jëlee feebar bon bi di coronavirus même bu ko fi yàlla jëlee it na xol yi continué waat noonu quoi nekkaat benn te xam naa ni xol yi moom bu nee nekk benn rek Sénégal lu ñu bëgg yàlla na ko defal ndax fi la mag ñu baax ñu tëdd Sénégal képp kuy wër nit ku baax ku ne ci àdduna amul amul fu doomu aadama baax dëkk yaa ngi dégg de ba gën a baax mag ñu baax ñu ne fii Sénégal kon na Sénégal jàmmaay foram ak salaam kon feebar bi yàlla nag fi yàlla sama borom jëlee may kontaan bu baax nag ci suma papa suma mag suma xarit muy Tahirou Sarr def atu bu noobul xam feer bi solo na doomu aadama yi sénégal yi participer ñëpp di participer ku dugal sa alal moom mu dem liggéey xaalisam mu lew ko lool mu yëkkati un milliard ci xaalisam joxe kat avant un milliard joxe woon na trente millions joxewaat quinze million pour maire Yoff fa mu dëkk joxe un milliard ci feebar bi jàppaleek askanu Sénégal yëpp ba pare di def ay camions yoo xam ay ceeba ci nekk ay addusoyol ak yooyu yëpp tout di ko yóbbu ci àll bi di ko may waa bi village surtout ay Fouta war fondé fépp bàyyiwul fenn kon nag kooku dafa jot tey Sénégal xam kan mooy tey Roussard da dafa def lu kenn deful ah. parce que day fii ñu fi nekk ay milliardaire bari nan kenn ku ne boo liggéeyee sa compte ngay def di ñaan yàlla mu gën a yokk kon nag kooku bu yëkkatee milliard te milliard duy fa de jox ko askanu Sénégal may leen ko ci xool bu sedd guy pour xeex feebaru bon bi kon kooku dafa jot tey sénégalais ñaanal ko ndax am na ñor ay milliards comme moom defuñu ko mais nag li ma gis nag mooy lan ñi fi nekk nag di rëy làmmeñ ñi moo ñu joxewul dara joxewoon sa paquet biscuit ñoo fi nekk di dingal loolu ñu koy wax ñooñu ñun lijjantuñu leen yaa ngi dégg Tahirou saar moo fi def lu kenn deful dañ koy waxal waxal kenn baax yombul te xaalis dafa sax ci xol yaa ngi dégg surtout ma milliard te Tahirou Sarr avant milliard bi maanaam moom dundaam bi yëpp social la wallahi lépp lu ko yàlla wërsëgale doomu adama yi la koy jox yow kuy fekk ñoo xam seen papa dafa génn àdduna seen yaay génn àdduna mu jël charge famille yooyu yëpp yor seen dépense yor seen lépp yaa ngi dégg ñi si amul su ay kër amuñu dëkkuwaay mu dajale leen jël benn immeuble dugal leen fi ñoom ñëpp di leen dundal di leen jox ñu lekk te jox ñu naan bi di tabax ay jàkk boo demee tegee jumaa yi fi ne Guelwaar Taïru Sane moo ko tabax boo ñëwee moo ko tabax maye ko kilifa yu bëri yu war oto si Dakar fii genn wàll gépp tey moo leen may oto beneen te gars yi dañuy toog duñ ko wax te dafa wax ko ndax alalu boo ci lekkee cent franc bi soxor doomu aadama waroo soxor yaa ngi dégg ndax ki nga xamante dafa liggéey xaalisam ba mu koy liggéey fekkoo ko bu la ci mayee cent franc ñaan ak yàlla sama borom yow kon tayru yàlla na ko yàlla sama borom aar léegi mu def ni ak autorité yi ne Sénégal yëpp participé ci feebar bi ah képp ku doo xaalis ku ne ak say ñaan ak yàlla yàlla na yàlla sama borom fay nag yaa ngi dégg ñu tàppaat xol yi mu gën a rafet wax dëgg yàlla ndax affaire maanaam sëriñ yi dañoo warate ba tas nit ñi di gën def lu leen neex sëriñ ci wax bu dee wate ñu gën a def lu leen neex yàlla nag indi fi coronavirus loo xam kay gisu ko mu yar ñëpp ah ay ñëpp la yar amul suwaare amatul làmb amatul dara amatul. Euh. télé gi sax liggéeyatun góor jigéen ñi kenn déggatu leen. ah, ah kon feer bi nii métti na waaye nag baax na fi benn côté de ndax dafa a dëkk bi de. Mhm. waaw na na dem nag après na dem yoonam moom na dem soxlaatuñu ko fenn ci àdduna bi yëpp. mais coronavirus moom yar na doomu aadama yëpp. yaa ngi dégg ma soxla encore même bu feebar bi demee ñu continuer waat nii wax dëgg yàlla ñëpp delluwaat seen activité xam mais ñu ànd ak dal di di di sàmm mbokk yàlla suñu borom. ndax mujj jamono la nekk lii yëpp ay xeeti mbugal la coronavirus bi ngay gis nii xeet sila Muhammad yàlla waxoon na leen ko bu yàgg a yàgg neewoon na mujj jamono bu ñëwee yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm sila Muhammad na ngeen gàttal seen tànk na ngeen gàttal seen làmmiñ mën nañ ci génn ndax lépp dina ñëw lépp lu leen daan lu leen daan nettali ngeen koy dégg nii daaw daaw la ko gis yàlla nee na bis na ñëw da ngeen ciy teg seen bët jaxaran te falan toll muy ahrusan mujj jamono kon lu waxee def na xoolaat na ngi def lu baax tàppe suñuy xol di yéenante jàmm te Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar yàlla nu yàlla sama borom jàppale. kilifa yi diine kilifa aada yàlla jàppale leen président Macky Sall mi nga xamante ni moom yàlla teg Sénégal ci loxoom yàlla oyofal yan bi si koom ba mu matal bu demee keneen ñëwaat fi yàlla oyofal yan bi si koom ñu koy toppati noonu ba keroog àdduna jeex Sénégal de si jàmm. am na solo kàddu yi am na solo bàyyi ma ñoon fi ma fu mu commencé rek ma indi foofu laay commencé euh, Basirou mu di fa mm. bay waaram moom it wax dëgg mm. yàlla moom it di sensibiliser mm. muy borom gabon mu nekk koo xam te ne xam nga doom ba sax ci sot la boo ko bàyyi ba ñoom ndax nit ku nekk ca la nga am moom ngay jàppale ci li ngay wax moom Omar Sow mu nekk responsable APR euh, nekk koo xam te wax dëgg yàlla conseil ministre de la jeunesse ñu koy remercier ndax dëgg lim lim ñu defal wax dëgg yàlla ñu de amatuñu fayam ndax waaye muy du ceeb beeg comprendre nga li nga am jël xaalisam di ko def ci jeunes yi di dugg kër gu nekk di sensibiliser ba hmm. Gabon dafay def aide kon nag di koy ñaanal jàmma ah, naan ko hmm. yéen bi hmm. yàlla na oyof ak jàmm ak salaam naa ko ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw loolu nag ama jàmm moom ma yóbbante ci yow te dangaa def ñu gis wax dëgg yàlla frérot ñu ngi lay remercier bu baax a baax ndax affaire bi am na solo ndax instant bi moom nit ki boo defee rek dégg ndax ku deful doo doo dégg dara Ah, Baye non lu am solo nga wax moom maa ngi koy nuyu bu baax autorité boobu nga tudd léegi maa mm-hmm. xam ne moo neex rek boo ko defee pare ba nit ñi di ko wax dañ mm-hmm. mm-hmm. a fii ñu yor alal waaye ñoo fi gën a gaaw dem safara ndax xam na moo tax yàlla bu la mayee alal am na noo xam te ni boo ko doxalee si diggante doomu aadama yi billaahi si caabi génn yàlla jox na la ko mais am na noo ko doxalee si diggante doomu aadama yi si caabi safara yàlla jox na la ko am na ay milliardaires yu ne Sénégal yoo xam say buntu kër kenn du fa taxaw boo fa taxawee ay xaj lan lan fay yeew te fay garde ñeneen ñu taxaw yaa ngi dégg kenn du kenn kenn du am sa soxla dinañ ko wax wala wala euh, ñu ñu am fi sax seen xel dem ci diw moo fa demee nangam ak nangam xam nga kon nag genre Tahirou Sarr dañ leen doon jàppale. te xoolal maanaam français yi fi ne ak ñeneen ak ñeneen jël suñu marché yi ne Sénégal yëpp xam nga état Sénégal jël jox leen ko. te xoola tey bi bi bi feebar bi ñëwee tey doomu sénégalais ñoo volonté wu joxe xaalis bu kenn joxewul kon nag président maa ngi lay ñaan boo liggéey marché yi ngay joxe day jox say doom doomu dëkk bi fii doomu Sénégal. ndax tey bi feebar bi ñëwee ñoom rek nga njëkk gis ñoom ñoo taxaw volontaire ne sa ginnaaw xam nga jaamu yàlla nag dafa bëri ay façon mën ngaa julli mën ngaa jàpp mën ngaa war mën ngaa joxe asaka mais nag dana jaamu yàlla yàlla yàlla jaam bi mu gën a bëgg mooy nga jaamu yàlla ca jaamam ya waaw nga jaamu yàlla ci biir jaam yi mooy yàlla wërsëgal la alal nga jël alal jooju bokk ak doomu aadama yi xam ni yow bi yàllay jox daf la jox pour nga séddale waaye xam nga ne am milliard fekkee nit nga war ngaa wéet war ngaa tëdd nelaw xam ne jox ma ko pour man kese daf ma ko jox pour ma séddale fekkee nit yàlla joxee milliard war ngaa wéet na man milliard bi yàlla daf ma ko jox pour ma bokk ko jox ko xol jox ko baaraam borom xol bu bon koo xam du joxe yàlla bu am ay milliards du am dara le Sénat moo xam ba nga ko laajee kan moo moo fit mun ab joxekat kan moo nitu àjjana mun a ab joxekat ndax ab boo boo boo problème cinq mille la nga koy wax mu jox la ko léegi gëm ni balaa ngoon yàlla jox ko lu mat lu mat cent mille francs yaa ngi dégg ak ab waa safara ñu ne mooy kan mooy ki nga xamante ne am problème mille francs mu yor lu ko fa fuuf nga laaj ko mu ne ah da yoruma dara pour moom bu la ko joxee dootul amat ci àdduna mu ne kuy wër am nay ak ab ragal ak nit safara mu ne jàppal kooku kon dañ autorité yi nga xam ñoo ne Sénégal def ci jël seen alal bokk ak ñun def ko ci feebar bi nii yàlla na yàlla soo borom aar aar àdduna bépp wax dëgg yàlla waaw am ñoon beneen mooy gis nañ coronavirus bi ñëpp participé nañ ci hmm. gars ne pourquoi mbër ñoom <laughs> gars ne <laughs> exemple man maa koy daw sax. ndax la ñu ba ah yow kat ni ma xoolee nii ñu bari ne. Mm. coronavirus bi gis nga. Mm. ñëpp participé nañ ci. Mm. ñu bari na mbëri. gis nga association des sages joxe nañ. ñu gis ñi nga xam te ne ñoom ñooy wàllu sport foot bi joxe nañ. Mm-hmm. gars yi na mbëri pourquoi defuñu seen benn kii takku ñoom it taxaw waxtaan ñoomit mën a won ni ñoom it ay porteurs de voix lañ. mbëri li def moo raw joxe. mbëri ñu ngi ubbi seen gémmeñ di wax yaa ngi dégg de di wax ak seen i nit di wax ak seen supporter di wax ak àdduna bépp te mbëri moo ci bon xel xolam tey bu sonoon tey feer bi jógee fi tey ñun ñëppaa ci bokk yem feebar bi déggoo li ma la wax ñu yàlla may alal xaalis ñu ngi def. ñaamul dara nag yor nu xaalis yor ñu wekkit ñu ngi ñu ngi joxe seen làmmiñ di wax. bëri joxe nañ kat man de koro xob man de koro dugg naa si internet bi yaa de dégg gis Gris Bordeaux ànd ak gars yi joxe affaire yu bëri gis naa ko de mbiri joxe nañ de. non wax yéen ne yéen ñii fayeeku millions yi yéen ñii bàyyi ba ñoon. yow mii fayeeku millions yi yow. <laughs> bàyyi ba ñoon ay Balla Gaye ay ñoom Gris Bordeaux ay ñoom Modou Lo ñi nga xamante ne yéen si Tahirou saar joxe luñ ñun ñëpp waaw bu jeex tag baax na ñoom. Tahirou Tahirou mi <laughs> yàlla joxe joxe luñ ñun ñëpp ñëpp la joxel. wallaahi ku joxe ku joxewul yëpp Tahirou joxel na ñëpp. Ah, wallaahi sant yàlla bu baax a baax a baax. Ah, di julliwaat salaam alayhi salaatu wa salaam. di ñaan yàlla suñu borom feebar bu jógee fii wax dëgg yàlla vraiment sonal nañ trop xam nga ñu ñëpp delluwaat ci activités yi may nuyu ñi ngeen fekk si gér gi xam ku si man tey suma kilifa la Ablaye Thiaw mi ngi toog suma grand frère Assane ak suma mag ma jigéen xam nga sumay sumay doom ñu nekk fii sama soxna ñoo fi nekk yàlla yàlla soo borom aar aar njaboot yëpp waaw yàlla wàcc si jàmm euh, dëkk bi jàmm ak xewal quoi vraiment yàlla aar leen yàlla jàppale Wassare Lamb ñu gën a Wassare Lamb ji xam nga boo boo Wassare Lamb ku ne corona bi demaale incha allah. rafet na yow. waaw di ko béggawaat bu baax a baax muy Baye Mandione kon ni ma ko doon waxee rek à chaque fois bu ñu ko soxlaa day yomb ndax ci disponibilité wax dëgg yàlla mu nekk suñu frère ba pare nekk suñu xarit di ko ñaanal yàlla bu baax a baax a baax di ko wax rek lépp lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén. yàlla aar ko muccal ko ci bàtti Seydina Mohamed parce que seet naan teraanga boo xam te ni xamuñ nan koy fayee parce que lii mu ñuy def rek teraanga la heure bu ñu ko woowee mu ne ah ñëw leen yéen su may sœur ngeen yéen su may rakk ngeen su may lépp ngeen te loolu nekkul ni ñëpp ñoo ko mën encore une fois naan ko kontaan nañ bu baax a baax a baax kontaan nañ daal loolu lañ loolu baax parce que borom baax la quoi di euh, di béggewaat nag képp koo xamante ne rek yaa ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV di ko béggewaat moom mi nga xamante ne moom mooy Basirou Diouf ah, borom wasaare loolu laa ko tuddee mu nekk koo xamante ne l'infatigable nekk koo xamante ne heure bu mën a ko acca rek mën a acca di ko ñaanal yàlla naan ko yàlla jàmmam yàgg di ko nuyuwaat bu baax a baax baara borom géejawaay di ko remercier moom it kontaan naa bu baax a baax ndax suma xarit la suma doomu ndey la naan ko yow yàlla na sa jàmm yàgg di wax rek kon euh, ni ñu koy waxee rek commencé guñu ah, dañuy nuyoo rek mais après nag di ñaan yàlla rek coronavirus bi jeex ñu defanteeg yéen naan leen koor gi nag ci kàttan yàlla am na émission yu doy waar yu ñu leen di indi lien que pour bañ ngeen wér rek parce que yéen ñu taamu rek li ma ne comme que yéen a ñu taamu rek ñu tamit lépp luñ ma dañ ko def rien que rek pour ngeen kontaan bañ a wéet Basiirou kese Wassare Lamb kese Fatima kese di jox nit ñi euh, dig daje ba beneen yoon ci beneen émission jaajëf waay